naka nga gisee li nga xam ne ni moom mooy saison Pape Matar Sarr bi muy def foofu ci Tottenham. waaw di ko encourager di ko féliciter di ko ñokk ñaanal parce que comme ni nga ko waxee donc yombuloon surtout tout au début c'était un peu difficile daaw bi muy dem dem ci période boo xam ni délicat. jóge métti dem directement fofu mu métti mais comme ni nga ko waxee rek so nekkee parent nekk sportif mu jógi chaque jour téléphone di waxtaan ak mom diko conscientiser ba yalla dimbali ko ren parce que li ñaan soko fa xaru do ko fa fek xeyna petite patience bi mu amone daw tok xeyna moko may li mu am ren. muy déclic wi donc mu xaar ko entraîneur bi ñew aussi ñew nekk ku bes biñ ko laajee dafa ni indil len ma jour yeb ma xol man ni ma ko dénkoon rek mi ngi door a ñëw wane li nga mën bi mu ko wane mu ne kii da ko fay téye donc mi ngi noonu li ñu def rek mooy di ko encouragé un di ko ñaanal parce que ñun loolu rek mooy suñu devoir ci moom. yaakaar nga dina parce que man ba pour man ba léegi sax dafa des parce que dafa des am na marge parce que yàlla suturaal na ko mu ngi ci état bi li mu koy conseillé rek bul yàkkamti table la football dafa métti yow heureusement bourlé woo def nga petite catégorie yëpp def nga U 17 U20 donc yaa équipe première bi bul dem mukk dans la précipitation Sénégal nag dafa équipe bu mag la am ay joueurs yu mag am ay ñu xarañ donc tey rek moo la fa mën a yóbbu fi muy tamit yaakaar naa ni mooy sommet wu football mondial Angleterre foofu aussi man ni ma ko wax keroog dama ne ko soo demee ba mun a imposer wu di jouer foofu waroo mën a am difficulté pour di imposer wu tam di jouer en Afrique donc conseil boobu rek am li ma koy jox. vraiment comme ni nga ko waxee en tant que parent di ko ñaanal rek yàlla may ko wér.